tey dañ fee daje en tant que étudiant waaye avant tout en tant que citoyen sénégalais mu am benn question bi am ci réew mi depuis mois de novembre passé muy la décision du gouvernement bi bi jël décision yokk li nga xamante ne moo jëm ci électricité bi ñun bu ñu toogee ba ba léegi def xayma ñu jàpp ne que ni ah étudiant de leen lañ ko doon tàmm di déggee muy saay su boursom tardé ñun nag ñu ne bourse boobu nga xamante ne tey population bi peuple sénégalais lu bëri la ciy def Euh, suñu ticket restaurant yi nga xamante ni popula euh, peuple sénégalais bi moo subventionné plus de quatre pour cent tey batiment yii ngeen di seen nga xamante ni ci kopparu Sénégal lañ ko tabaxee ak suñu amphithéâtre théâtre yi ngi nekk ci suñu ginnaaw loolu yëpp nga xamante ne peuple bi moo ko moo ko def ci ñun donc peuple bi tey mérito na ñun tamit tey ñu am beneen xalaat am beneen gisin maanaam euh, engagé wu waaye tamit déterminé wu pour son service à son service mais aussi également pour son épanouissement loolu moo tax ñu juger question bii nga xamante ne mooy question la question de l'augmentation des prix de l'électricité une question boo xamante ni question wu ñëpp la vu que question wu citoyen sénégalais yëpp la moo waral ñun ñu ne euh, ñun étudiants yi kenn duñ ci ëppale parce que ñun ay étudiants lañu waaye nag ay citoyens sénégalais lañu avant ñuy nekk leneen moo tax tey ñu dajaloo fii pour wane de manière officielle que ñun étudiants yi à travers notre plateforme citoyen étudiant Euh, bokk nañu ci collectif bi nga xamante ne mooy le collectif citoyen ñoo lànk moo waral ñu euh, créer benn section ñoo lank UCAD loolu moo waral tey suñu ndaje pour wan peuple sénégalais bi que ni l'étudiant est responsable pour wan au peuple sénégalais bi que ni l'étudiant est est et au service de son peuple raison pour laquelle nous sommes là pour dénoncer avec le collectif Ñoo Lank mais aussi également pour euh, xeex ak sénégalais yi nga xamante ni nemmeeku nañ que ni depuis décision bu mu duggee ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi koy wane que ça soit ñuy dem ci manifestation yi que ça soit ñuy dem ci marché yi que ça soit ñuy toog seen i kër parce que gis nañu récemment campagne flyers fépp bi nu ko sénégalais accueillir à bras ouverts. waaw mais comme tubaab dafa ne mieux vaut tard que tey dañoo jug parce que. amoon na suñu ay camarade yoo xamante ne jàppoon nañ leen le 29 novembre ce qui veut dire ñun étudiants yi yéexu ñëw dugg ci combat bi parce que combat bi soo moytuwul sax bokk nañ ci ñu ko déca ci ñu ko déclenché moo waral le 29 novembre bu ñuy def marche vers le palais il y avait des étudiants pris et d'ailleurs étudiants yee fa ëppoon ak professeur université ak yeneen camarade yoo xamante ne ay activistes lañu loolu moo tax ñun étudiants yi certes que autorité étatique bi certes que suñu dirigeants yi à travers la pression universitaire Euh, euh, réussir nañu ba libéré ñi nga xamante ne ñooy tous les universitaires waaye tey ñun étudiants yi dañu ne mbir mi du libéré universitaires yi kese mais mbir mi mooy libere képp koo xamante ni yaa ngi woon ci mbir mi te dara taxuloo woon jóg muy intérêt wu Sénégal ñu bàyyi la loxo euh, dans ce cas ñu ngi interpellé gouvernement du Sénégal pour wax leen que ni Guy mari Sagna bi ñu séquestré prise ko tenir ko en otage ñu libéré ko ci anam yu yu mu gën a gàttee waaye tamit di wax état du Sénégal que décision bi nga xamante ne jël na ko te mu nekk une décision irresponsable ci ñoom nekk tamit une décision impopulaire parce que soo wëree ba Sénégal daj ñoom kese ñi nga xamante ne am ñu ci bëri ci ñoom dañoo détourné ay détour dañoo def ay détournement de deniers publics yi leen may tey ñu mën a fay facture d'électricité tey su fekkoon un million la par kilowatt ñoom mën nañ ko fay parce que corps de contrôle wane nañ que ni ñi nekk ci gouvernement bi lu ñu détourné ci Eh, keesu état bi soo ko xaymaayee ëpp na ay sept mille milliards ñun sénégalais lambda bi ñun étudiant nga xamante ne suñu parent yi dañuy taaba taaba pour fay électricité amuñu sax lu ñu fayee électricité du ñu nangu mukk ñuy euh, jël gap bi nga xamante ne def nañ ko ci détournement scandaleux ci surfacturation yooyu ak yeneen ak yeneen yeneen magu yoo xamante ne def nañ ko ñu koy teg suñu ndod pour ñu koy fay moo waral en tant que étudiant ñu jug taxaw temm takk suñu ndigg nag parce que soo xoolee tey am na ay représentants wu dans chaque faculté cinq facultés yu fi nekk yëpp am nañ si ay représentant te noonu ni ñuy def continuer combat bi ci sensibilisation d'abord suñu jugee ci sensibilisation am nañu benn plan d'action bien déterminé te bu buñ ci yeggee d'ici la semaine prochaine dinañ woowaat presse bi comme ni ñu ko defee pour wax leen suñuy plan d'action pour jàpp ci combat bi nga xamante ni mooy le combat pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité waaye aussi également et surtout mooy le pour la libération de not camarade gii mari Sagna qui est un digne fils de la République qui est courageux qui n'a ki euh, nga xamante ni euh, sàccul détourné wul euh, deniers publics trafiqué wul faux billets trafiqué wul euh, drogue trafiqué wul li nga xamante ne mooy médicament donc moom place am tey du kaso loolu moo taxoon ñu def rencontre bi waaye tamit également munu mënuñoo terminer sans pour euh, lancer message à nos camarades étudiants wax leen ni que ni ñun étudiants yi ay citoyens simples lañu avant ñu nekk ay étudiants loolu moo tax ñun ñi nga gis ñu engagé wu au service de notre peuple waaye tamit di la di yëgal ni. que ni suba ak jàmm incha allah tombeeg mercredi 29 novembre euh, janvier collectif ñoo lank national ñoom dinañ dox mbokk fii nga xamante ne mooy étudiants yi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce qui veut dire mooy lu ñu def ak les partie politiques def ko ak les autres couches sociales ñoom décidé nañu def ko ak les étudiants demain incha allah accompagner ko nag ak une campagne flyers sweep bu ñu weesoo si loolu am na benn marché national bu ñuy préparer muy le di prochain yem ak 31 janvier 2020 moo waral te marché bi di commencé fii ci buntu université war a jëm euh, poste Médine moo waral euh, loolu rek doy sëkk que ni étudiants yi nag d'ailleurs actuellement ñi ngi ci au cœur de ce combat te jour bu jour ba dinañ con euh, dinañ mobiliser avant boobu suñu camarades yëpp pour ñu am une mobilisation forte dem ci li nga xamante ne mooy marché ba Euh, revendiquer li nga xamante ne mooy suñ droit. waaw d'après euh, collectif ñoo lànk national d'ailleurs def nañu ay ay enquête ci wàllu woowu la et enquête yi euh, question yeeg tout ñun jàpp nañ ni amul benn loo loo xamante ne préfet war na ko mën a sukkandiku pour interdire parce que di fàttali askanu Sénégal que ni demande demandé wuñu autorisation dañoo yëgal préfet parce que moom mooy l'autorité bi nga xamante ne moom la ñu war a yëgal. li nga xamante ne mooy suñu doxum ñaxtu qui est également un droit constitutionnel et fondamental donc gisuñu benn mesure wala benn motif bu war a tax préfet interdire ko te incha allah dinañ def marché bi dinañ def dem ci marché ba te ñun étudiants yi kenn duñu ci ëppale dara dinañ mobiliser lépp loo xamante ne mën nañ ko pour euh, participer de manière massive ci marché boobu la. non duñ ci wax parce que en aucun moment. jàpp nañ ni préfet mënul bañ marché boobu et d'après les enquêtes ñun gisuñu que ni préfet bi dina bañ marché boobu peut-être day xaar le moment opportun pour mu autoriser ko et d'ailleurs ci la ñuy profiter pour lancer appel à toute la population sénégalaise pour ñu ñëw soutenir leur camarade Guy Marius Sagna nga xamante ne amul lu mu deful pour Sénégal waaye tamit un appel à toute la population sénégalaise pour wax leen que ni bés bu ñu toogee banque seen yoxo ne lii euh, marché mënu si dara wala banque seen yoxo ne seen yoon nekku si suba d' ailleurs yokku nañu taxe importation bi à valeur de douze pour cent ci lu nekkoon ci deux pour cent suba dinañ yokk yeneen denrée te yooyu dina am ay répercussions ci denrée bi euh, dina amaat tamit yeneen hausse yoo xamante ni ñun duñ ci mën dara mieux vaut ñu boole suñu doole ànd ak étudiants yi ànd ak syndicat d' enseignants yi ànd ak les autres couches sociales ak partis politiques yi pour ensemble ñu door dóorandoo waaye aussi ensemble pour dénoncer de euh, de manière rigoureuse li nga xamante ne mooy cette hausse qu'on juge illégale sans fondement et impopulaire du prix de l'électricité sama dernier lancé mooy lancé waat un encore une fois à tous les étudiants parce que mbir mi du université Cheikh Anta Diop kese mais mbir mi université du Sénégal yëpp la moo tax ñun suñ fa jógee dinañ sol suñu dàll dem gisante ak yeneen universités yi pour euh, saxal fa li nga xamante ne mooy ñoo lank ci yeneen université yu ci mel ne Gaston Berger Assane Seck Ziguinchor Bambey ak Thiès ak yeneen université yu ëmb yu nekk fii ci Sénégal loolu moo nekkoon message bi di lancer un appel à tous les étudiants à ce que ñu répondre massivement à à notre appel ce vendredi 31 janvier jaa ngeen jëf. Comme l'a dit le camarade tout à l'heure nous sommes là pour intervenir sur la question de la hausse des prix de l'électricité donc cette hausse a été une décision prise par euh, le, le gouvernement du Sénégal les mois précédents à, à, la surprise de la masse, à la surprise de tous les Sénégalais. Donc nous, nous avons jugé que cette décision est euh, en tout cas, autant impopulaire qu'injustifiable. Donc l'ex-directeur de la Sénélec, Martar Sissé, affirmait qu'aujourd'hui, euh, la Sénélec n'avait pas de problème de fonds, n'avait pas de problème de trésorerie. Euh, donc c'est dans cette, dans, cette, dans cette, logique que nous nous sommes dit que cette hausse donc, des prix de l'électricité n'est pas justifiée et n'est pas justifiable. Et d'ailleurs, cette décision n'a pas été sans conséquence. Parce que depuis lors, les populations sénégalaises n'ont cessé de s'indigner, de montrer leur désaccord à travers des marches, à travers des manifestations, à travers des rassemblements, pour dire non à cette hausse-là. Et force est de constater aujourd'hui que l'État du Sénégal, malgré toutes ces marches-là, malgré toute cette indignation de la population sénégalaise, n'est toujours pas revenu sur sa décision. Donc c'est par rapport à ça que nous, étudiants euh, de l'université et citoyens à part entière, déjà avant d'être euh, étudiants, nous avons décidé aujourd'hui de prendre part au combat pour, en premier lieu, dire non à la hausse des prix de l'électricité, donc travailler en connivence, en toute énergie, synergie d'action avec euh, euh le collectif Langue National, et en deuxième lieu, protester, en tout cas euh, s'indigner par rapport à la séquestration de l'activiste Guy Maurice Sagna, qui est un Sénégalais, un citoyen à part entière, un citoyen digne, qui est aujourd'hui retenu derrière les barreaux sans raison valable, pour la simple et bonne, et bonne raison a manifesté contre cette hausse-là, qui est aujourd'hui une marche pacifique qu'il a menée, une marche qui euh, lui est autorisée par la Constitution même. Donc aujourd'hui, le retenir de Relais Barreau, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ses amis, nous considérons que cela est une bravation, en tout cas une violation de ses droits constitutionnels les plus élémentaires et donc nous ne pouvons en aucun cas cautionner cela. Alors, il y a un plan d'action qui est déjà prévu, à savoir une massification au sein même de l'université. Et quand je dis l'université, je ne parle pas que l'université euh, l'université de Cheikh Anta Diop, mais de l'ensemble des universités sénégalaises. Déjà là, vous avez euh, représentation des, des facultés de cette université-là. et la massification va prendre plus d'ampleur dans les jours à venir. Nous, nous comptons faire une sensibilisation, plus, euh, grande mobilisation, une plus grande une marche qui est prévue par le collectif national, euh, une marche à laquelle nous allons prendre part, et qui va euh, débuter ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop ce vendredi. Et nous appelons toute la presse nationale comme internationale à venir y prendre part. Bon, alors déjà, euh, nous tenons à souligner que l'autorisation du préfet, nous ne demandons pas d'autorisation. Nous faisons une déclaration de manifestation. Parce que la marche, le droit de manifester, c'est un droit déjà garanti par la Constitution. Et jusque-là, en tout cas, nous n'avons vu aucune raison qui devrait pousser euh, le préfet à ne pas autoriser cette manifestation-là. Donc, depuis les activités, que les activités du collectif ont commencé, nous n'avons pas vu d'actes de violence, Donc je ne vois pas, en tout cas, une raison qui pousserait le préfet à ne pas autoriser cette marche-là.